gannaaw dogal gi nga xamante ne nii préfet bu cees jëloon na ko nag ngir rek tere cant gi nga xamante ni nii naroon na am ca place bu France soxna Aïda Saliou Thioune ak cantaakoon yi nag cant gi ñu ngi ko mujjee defee ca diwaanu Cofeel ci mbooloo nag mu bari jóge ci gox yu fasantikoo ci réew mi nag ñoo ñu ko kàddu nag benn rek la woon mooy jële jëfe soxna Aïda Saliou Thioune. waaye nag ak cant li sëñ bi wax nee na wax ku ko xeeb xamul ndax yàlla daa nekk ni kun laataa muy jëf. kon wax lu am solo la moo tax ak cant mënut a ñàkk suñu diggante ak ci nii nga àndee ak suñu ñun ci yërmande waaw ci bëgg ñu ci fonk ñu ci yéene ñu waaw. ñun ñun lu def lu la cant barke sëriñ Béthio xol yaa ngi nux nux ñu ngi lay sant soxna Ndeye Saliou Thioune sëriñ moom mi nga xamante ni nii mooy njiite cantaankoon yi nag bi muy yëkkati kàddu mi ngi wane ni nag ñoom cantaankoon yi ay citoyen lañ te ñëpp nag ñu ngeeg seeni i carte roon li nga xamante ni nii mooy micro centralu Cantiki kii di Boubacar di dikkaat na ci li nga xamante ni nii mooy ak ak yi nga xam xamante ni am nañ ko ci réew mi tey ñaan ñi nga xamante ni nii ñooy autorité compétent yi mu daal di leen koy jox ñi tëgg sabar ñi ngi tëgg sabar ñu di leen ko nangul dama ni ñii simb ñi ngi simb ñi di leen ko nangul ñii dem ci boîte yi ña ngi fay dem ñu di leen ko nangul ñun nag sunu cant gi kenn mënuñu ko tere wala ki ñu ciy njëkk a interpellé di ko ci woo ngir nii nga taxawee ci réew mi mooy le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ndax xam nañ sa volonté ci faire du Sénégal un pays émergent loolu yi nag ñu war ñoo war ubbi say bët ci jëmm ju mel soxna Aida ndax kii ku ko am ci mim réew da nga koo ndamoo da nga koo war a googee nag nekkoon ci li nga xamante nii mooy wàccaayu jëm ci màggal gi lañ fa dajale ci koppar takk loolee te lañ fa jàng ci ay kaamil toll ci 1711 kaamil 41 466 xasida 1944 ayatul kusri ngir mën a ñaanal soxna Aida Saliou mu yàgg fi lool